Home Choice Sénégal mooy këru ouvrier yi mooy këru professionnel yi képp koo xam ni da nga di professionnel di liggéey wala ngay ouvrier da ngay soxla outillage ñun ñooy numéro un ci wàllu outillage fi nga xam ni moom moo di ci réew mi ak fépp foo dem ci àdduna bi la marque Total est de renommée internationale lan nga bëgg groupe électrogène aspirateur pompe émergée motopompe meuleuse perceuse visseuse wala lan Total suñu adresse mi ngi nekk 82 avenue Lamine Gueye téléphone quarante cinq suñuy partenaire ña nga ca Mbour Tivaouane Pikine Tali bu mag Touba Kaolack mais aussi à Saint-Louis la marque Total foo dem ci àdduna bi fekk ko fa ndax qualité jataayu fatwa yow mi am lu la ump ci sa wàllu diine jaaxle jeex na leeral fm jagleel na leen seen émission bi di alfatawa alfatawa di émission buy tontu seeni laaj yu jëm ci seen wàllu diine àllarba bu jot une heures jàpp 22 heures ngeen ci ànd ak al oustaz Abdallah Baba Dieng mu ciy feggoo ak ak docteur Mouhammad Ahmad Lo ak seen émission bi di al fatawa ku am ab laaj jëmale ko ci émission fatawa mën nga koo bàyyi ci numéro bii 77 396 42 42 nga mën faa bàyyi sa laaj ci whatsapp bi kumpa tàggalikoon ak yéen ci lu jëm ci seen wàllu diine alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala yi nga xam ne yéen a ngi top topp ci seen émission fatawa bi ngeen di ànd ak cheikhana ak docteur Mouhammad Ahmed Lo xafidahullahu wa raa tey àllarba ñaar fukki fan ci weeru jumaada al quarante 1444 tombeek fukki fan ak ñeent ci weeru décembre 2022 ñu leen di ziar ak fu ngeen man di nekk moo xam ñu ni topp ci leeral FM bi ci Louga la wala keppaar ga ja Kaolack wala salaam bi ci Mbàkke moo xam ñu ni topp ci leeral FM ba ca Ziguinchor la wala leeral FM ba ca Podor moo xam ñu ni topp ci xam sa diine dégg dina xam lu sa moo xam ñu ni topp ci réseaux sociaux yi YouTube beeg Facebook beeg euh, WhatsApp yeeg yeneen groupe yëpp. moo xam dermalu officiel la moo xam soppey fatawa docteur Mohamed Ahmed lool ak yeneen ak yeneen ñu ni topp ci biir Sénégal ak ci biir Afrique moo xam ñu ni topp ci Europe wala Amérique wala Asie wala Australie faneen ñaan yàlla subhanahu wa taala defal leen tawfiq defal ñu ko defal ko mboolem jullit defal ko cheikhana xafidahullah waraa kon cheikh bi ñu jox la nga ibbee ñu doogay ñëw ci lenn li fi rot ci laaj yi bismillahi rahmani rahim inna alhamdulillahi nahmaduhu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 mu ni ndax dina mën su jullee tisbaar rek mu teg ci takkusaan bala muy dugg ci liggéey boo xam ne day am ñaari julli yoo xam ne da koy faat muy takkusaan ak timis mu léegi muy def ñaari nag mu mu julli benn bi takkusaan bi timis bi mu moom bu bàyyi mu bàyyi ba ba mu wàcc mu boole ko géej gi. alhamdulilah ala kulli xaal wax nañ ba tey ne ab liggéey jarul di faat ak julli. kuy liggéey ba julli jot danga war a julli kuy signé contrat danga war a wax ak sa patron ne ko waxtu sàngam bu jotee soxla naa fukki minute bu waxtu sàngam jotee soxla fukki minute su d'accord ci lool alhamdulilah su d'accord ci loolu nga seeti keneen dëgg la koo xam ne danga dugg ci biir liggéey lu mel noonu jekki-jekki gaar man ngaa boole ay julli ngir lu gaar waaye nag saxoo ko faw nga xam ne dangay boole tisbaar ak takkusaan timis nga di ko yeexe ba gée nga door ko julli ci kaw ne ab liggéey rek moo ko waral loolu moom ku koy def dañuy am tiitaange ci dugg ci bal tusiruuna alxayaata dunya gënal dund ak àdduna gii wala al axiratu xayrun wa abqa te xam ne àllaaxira moo gën moo gën a sax loolee moom la nit ki di am tiitaange ci ki nga xam ne addunaam day tax muy faat ay julleem su dee daa dem ba jëmmi jamono nag mbir gaar nga xam ne mënta bañ a boole tey jii wala tey ji ak suba suba ba loola dara mën na caa a nekk ndax ak yombal lay doon ci sharia waaye li ñu mënta dégg daal mooy dëkkoo ko nag nga xam ne dangaa soppi waxtu julli yi carrément di julli takkusaan waxtu tisbaar li yeexe timis ba gee jot nga doon koo julli ci kaw ne dama nekk ci liggéey loolu moom charia du ko nangu wallahu taala alam waffaqakum albaari jërëjëf cheikhana cheikh bi soxna si nee na moom daal wax dëgg yàlla jaaxle dong nga tax muy woote pour bëgg ku ko conseil jox koy xalaat nee na mi ngi nekk ak jëkkëram depuis vingt ans deux mille trois sax la wax xëy na dix neuf ans et quelque nee na wax dëgg yàlla su waxee yàlla rek jëkkëram ku baax la du ku bon euh, suturaal na ko yërëm na ko waaye nee na daal li ko jaaxal mooy ñetti at a ngi nii ñoom bi dañuy am problème saa su nekk neen xamul lu tax nag nee euh, toog naa moom ay yooni yoon laaj ko jënd na sax si kii jox ko mu laajte lu xew jéggul waaye bu neen daal ba léegi daal dañu am problème muy laaj di sàkku yan dénkaane nga koy jox. alhamdulilah ñoo xam ne day ñu ngi sëy deux mille trois ba léegi war nañoo mën a muñalante nag ala kulli xaal euh, su fekkee ne borom këram ni mu ko waxee borom diine la nekk borom jikko mu dem ba mu yàgg mu jékki-jékki ñi meroo ñoom ñaar. mbir mu mën a doon mu nekk ku ko bëgg a saafara da ngay xool ba xam lan mooy sabab yi lan moo tax meraw googee di am su fekkee fii xëy na bu góorgóorlu na ba xam ko rek wattandiku yooyu mooy daal di doon saafara yi su fekkee ci ak wetam la jóge su fekkee daal jóge ni wetu borom kër gi mu dimbali ko ci fexe ba yooyu saafarawu ndax seen diggante mën a gën a tax ndax nit ki léeg-léeg dund ay mbir yoo xam ne ay jafe-jafe boppam la yoo xam ne ci biir xolam la nekk akum xelam ba tax boppam ubbu koy waxtaan ak moom ci yeneen yu bokkut ak yooyu ñaari day mel ni ku la déggut sax gaaw ba ngam lool lu yëngu mën naa daal di dal ci sa kaw fekk doo xam lii lu mu doon su ko defee jiima gëstu yooyu ba xam lu mu ga nga dimbalanteeg moom ci woyofal ko loolee ci xarala jigéen la war a bokk léeg-léeg it mbir ma mën naa amee ci wetu jigéen ji am melokaan wu mu yoroon ba mu yàgg mu jékki-jékki di taayal ndànk-ndànk di taayal ndànk-ndànk di dellu gannaaw ba mu yàgg mu àgg koo xam ne ko sore sori la te yëgu ko su boobaa loola mën naa naqar yi borom këram te du ko wax ala kulli xaal sabab yi mën a indi lu mel noonu yu bari la jigéen ci xarinteefam ak mën a seetloo war naa mën a dem ba xam borom këram lan moo tax digganteem ak moom neexatul ci fekk at yi ñu weesu su ko defee mu jéem koo saafara naam. jazakumullahu xayran cheikhana cheikh bi kii mi ngi tudd Moussa di wootee Gambi nee na moom nim daa def par àjjuma bu julli bu ju bu duggee fekk euh, ñuy nodd imam bi ngi toog ñu koy noddal nodd bu mujj nee na day taxaw ba kii nodd daaneel moom mu doogay julli ñaari rakkam fekk imam mi xutba waaye nee na bis dafa ñëw toog am ko ko xam ne moom da doon def loolu moom ni mu koy defee kooku di ko def mais bi imaam bi paree dafa wax ni day leen julli avant imaam di tàmbali xutba ngeen di nag ba waaju naa du pare ngeen di julli fekk imam baa ngi xutba loolu jaaduwul muy laaj lan mooy wér lu wér ci loolu alhamdulilah ki nga xam ne day julli si ajjuma day lu gën a teel ci ak julli si moo ëpp tuyaaba kon bàyyi ba ñu nodd nga door a dugg loola moom daa war a nekk rek lu gaar waaye warta nekk luy dari ala kulli xaal su fekkee ne dugg na ci jàkka ji te tàmbali bi nodd la gën dëppoo sunna te gën a jaadu mooy mu taxaw ànd ak ki nga xam ne day nodd di wax la muy wax ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santaane bu daaneelee mu julli ci yonent bi sallallahu alayhi su noppee daal di julli ñaari rakkaam donte imaam tàmbali na di xutba ndax xutba imaam kat bu tee ñu julli ñaari rakkaay tahiyatul masjid jàkka ji képp ku fa dugg te bëgg a toog te ngay ñaari rakkaa loolu moom lu sax loo xam ne e, xutba imaam du tax mu dañ Sulayk al-Ghatafani rahimahullah dugg na ci jàkk ji yonent ba sallallahu alayhi wa sallam di xutba mu agsi rek toog alayhi salaatu wasalaam daal di dagg xutba ba ne ko ndax julli nga ñaari rakaa mu ne ko déedéet mu ne ko jógal julli ñaari rakaa te woyefal ko wëlbatiku daal di ne kenn ci yéen su duggee ci jàkk fekk imaam a ngay xutba julli ñaari rakaa war a naam jazakumullahu xayran jërëjëf cheikhana cheikh bi kii mi ngi tudd Mouhamed Ba nee na mi ngi def deuxième année ci master am nee na dafa am benn góor gu faatu bàyyi ñeenti soxna ak ak juróom benn juróom ñett yu góor juróom ñett jigéen mais kenn ci doomi góor yi da ci am koo xam ne depuis 2008 dafa dem tax xamuñu ci lum ne ñu téye xaas bi mat na at nag ban ko teeg léegi ndax xaas bi dañ ciy génne azaka wala déet suñ paree ndax li ci des ñu war ko léegi nag miraas ndax moom dañ koy génneel euh, wàllam bàyyi ko fi wala nu ñuy def te alal ji yëpp kat un million six cent mille la. alhamdulilah ki nga xam ne dafa génn àdduna bàyyi alal bàyyi fi ak njaboot am ci ko tukki koo xam ne xamuñu fu mu nekk. Euh, ala kulli xaal jaadu nañu miraas ko suñ ko miraasee génn wàllu kooke nga xam ne nekku fi dencal ko ko keroog muy ñëw su fekkee dem nañ ba mu wóor ne moom mi dundatul wala jox nañ ko àtteeg koo xam ne ku faatu la su boobaa alalam jooju ñu génne woon denc ko ci kees ga ñu génne ko ñu ko war a donn ñu donn ko ci ni ko chariatul islam santaane mu des nag lu aju ci loolu yi mu wax ndax danañ ci génne asaka wala duñ ci génne asaka montant boobu yi mu wax muy un million six cent mille francs ak nombre famille boobu yi mu wax juróom-ñetti góor ak juróom-ñetti jigéen ñooña suñ leen seddalee alal jooju asaka waru ci ndax kenn ku nekk la ngay am du mat nisaab kon su boobaa asaka waragul ci alal yooyu wallahu taala alam macha allah jazakumullahu cheikh bi kii ab commerçant la nee na dafa am ku ñëw jënd ci moom marchandise waaye bàyyi ko fa ni ko dinaa ko jël moom bi mu bi mu ko joxee xaas bi mu ne nagal ma dem jëndi marchandise bi teg ko fi bala moo yokk ndax mu ñëw fekk ko fi mu dem jënd ko waaja nag ko jëndoon bam demee ba soxla ko Euh, wala boog mu dem ba mu yàgg mu yëg ni marchandise bi gën naa wàññeeku la jar gën naa wàññeeku mu ñëw pour na pour jël xaalisam commerçant bi ni ko loolu jënde woon naa ko marchandise ba teg ñaar rek mooy mën a am mooy nga jël marchandise mi wala ñu xool li muy jar fii ñu toll nii ma jox la xaalis ci lool mu ni ndax ñoom commerçant boobu lam ko proposé noonu la wala du noonu alhamdulilah waajoo ji borom marchandise mi ginnaaw jënd na ñu yëkkati lam jënd tegal ko fa di ko fa kooku amul xaalis waaye marchandise la su dikkee la mi man rek muy jël marchandise am moom yi dem su fekk xëccoo nag xas na ca am waa ji noonu yi mu waxee du tëdd du tëddee du tëddee noonu ndax daf ne su fekkee ne dafa soxla xaalis kon moom day calcul li muy jaar ci bés boobu déedéet su fekkee xas naa d'accord nag ci joxe xaalis kay xaalis ba mu ko joxoon lu toll noonu la koy delloowaat waaye nag am na droit ci ne ko xàcc moom sañoo ko amuloo xiyaaru xàcc sharia mayu la ko li nga am daal mooy sa saaku ceeb bi nga jëndoon fii nga ma ko tegloo woon foofu laa ko tegoon di la xaar boo ñëwee li nga mën rek mooy jël sa saaku ceeb boo ko mënoon nga wàcc ko fi saa boo ko soxlaa jël si ko waaye xaalis moom amatoo ko waaye nag su duggee ci ne ko nag ñu def sulx mu ne ko mën naa la jox xaalis su koy jox xaalis na ko jox xaalis ba mu ko joxoon waaye bu mu ko dama koy xayma ci li ceeb di jar tey déedéet naam jërëjëf cheikhana waffaqakum allah jazakum allahu xayran cheikh bi kii nee na ci julli su kàbbaree kàbbaroo armal bi nee na dafay gis ñenn ñi dañuy wàcce waat seen loxo ba ci suuf ñu doog koy teg seen ñeneen ñi buñ koy wàccewaat du duñ wàccewu ci suuf dañuy def direct rek teg seen dënn mu ni ñoom ñaar bu ci gën a wér wala ndax ñaar yëpp a wér alhamdulilah li ma jàpp mooy ñaar yëpp wér waaye nag kàbbar rek teg ci sa dënn mooy al awla maanaam moo gën a yey moo gën a dëppoo ak li ñëw ci texte yu bare bare bare bari waaye ñëw na ci ay texte nag yu néew yoo xam ne lañ cay déggee mooy kàbbar la gal yi door ko yëkkati teg ko ci dënn bi wallahu taala alam jërëjëf cheikhana waffaqakum allah cheikh bi kii nee na dafa am benn application boo xam ne application bi daal ci biir de chaque jour par ngoon da koy fàttali suratul mulk pour mu jàng ko mu ni ndax jàng suratul mulk ngoon gu nekk dafa wér ci sunna wala déet alhamdulilah application yi fàttali nit ñi lenn ci jaamu yàlla yi loolu lu baax la ala kulli xaal alxuraan moom nit ki day jàng la jàpp ni rek bis bu set moo xam day jàng soo mulk wala sootu yaasin wala alfatiha wala moo xam la muy jàng ala kulli xaal dara ci alxuraan di ko jàng moom dara nekk ci waaye nag saxoo benn saari képp na wuutal ko waxtu woo xam saa bu jotee di ko jàng mu ci ngoon bi loolu bu yàggee nag day mujj aajowoo dalil nag day mujj aajowoo dalil ndax lépp loo xam ne jullit bi daf koy saxoo ci xeetu jaamu yàlla boo xam ne daf koo nattal waxtu boo xam ne su jotee ca la koy def tànn itam euh, xeetu jaamu yàlla gi nga xam ne jëfandikoo wut xeet sàngam xeet sàngam waaye xeet sàngam rek la jëfandikoo su boobaa nag loola su ko dee def léeg-léeg dara nekk ci waaye bu ko bëgg a saxoo faw nag day aajowu ab dalil soo amul dalil loolu mën na ko tàbbal ci biddaa waaw jazakumullahu xayran jërëjëf cheikhana cheikh bi kii Europe la nekk nee na mi ngi liggéey dañ koo jël formé leen pour ñu nuy rendee euh, nag ak euh, euh, xar yeeg yu demee noonu ci yoonub lislaam mu ni waaye avant ñu leen di rendi ñoom gars yi dañ leen di dóor bal yeesa am na ci yenn yoo xam ne yenn nag yi dañ leen di masse courant ba ñu xaw miir leen dese dund ñu doog leen tëral ñoom ñu di leen mu ne ndax anam boobu dina dagan wala deet ñu niy dóor balit leen dooree bal dinañ dese dund ñoom ñu doogay ñëw àggale rendi alhamdulilah di bëgg a rendi mala daal koy dóor balu fetal wala nga saako ko ak courant loolu moom jëf ji ci boppam rek daganut ndax mettital ku méttee métti moo ci nekk lu jéggi dara mu des nag ndax suñ ko rendee des na ko lekk walla déet loola atte bari dellu ci situation bi nga xam ne ca la nekk bañ koy rendi su fekkee ne day bal bañ ko dóor dal na ko ci paat bu ba suñ ko rendee ak suñ ko rendiwut lépp day dee wala nañ ko maase ci courant bi àgg na ci rey mu dee reyit mu dee su boobaa soo ko rendee itam baaxut moo almawquzatu ca laaya ja ñoo bokk ab atte mooy loo xam ne dañ ko sànni aw yat fàdd ko mu daanu wala an natiixa yaar yi nga xam ne dañoo daanante ba sonn ba àgg ci rey mu dee reyit mu dee moo kiñ fàdd ci aw yat walla ci aw xeer comme àgg ci rey mu dee rey mu dee ñoo bokkub àtte nekk noonu almutaraddiya muy mala bi yéegoon ca kaw doj wa faf barastiku di barastiku di daanu ba ak si fi suuf tëdd nga xam ne rey mu dee rey mu dee la su boobaa boo ko rey itam mëdd la kon balub fetal bi ak courant bi àtte boobu lay su fekkee bal bi nag téewu koo dund suñ ko bàyyee mu daw demu yoonam suñ ko rendi téewut baax na waaye rek bàkkaaru mettital bi ci balu fetal bi moom def ala kulli xaal courant bi bi kii dafay laaj mu ni ferlu ku tuur ndox ba pare di ferlu nee na ndax mën na koo def sans ndox maa def ko ci ay loxoom wala ci kii yi teg yu demee noonu mun leer ko ne daal dara génnatul mu doogee dem jàppi wala il faut mu defee ko ndox alhamdulilah farlu ci lu dul ndox loolu la ñu tuddee al istijmar bu dee al istinja mooy jëfandikoo ndox al istijmar nag mën naa doon ay want mënees na ko jëfandikoo it ay jembaraay maanaam ay doj yu ndaw yoo xam ne mën naa dindi sobe manees na ko jëfandikoo it ay mouchoir yoo xam yu laab la moo xam këyit la wala leneen amma lim wax nag ne jëfandikoo ay yoxo loolu moom du jaadu kon la koy setal day doon leneen lu ñuy jëfandikoo di ko fomp ba mu set moom ni mouchoir yi nga xam ne mooy nekk ci duus yi léegi yooyu mën naa setal waaye nag jëmmi loxo ci boppam nekkul loo xam ne day sotal ndax su sotee woon ca bërëb ba yëpp taq na ci loxo bi ànd ak ne yooyu yëpp nag su ndox amee moom ndoxa leen gën ndax moo gën a mën a sotal fuuf ala kulli xaal waaye nag lu dagan la ci shariatul islam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santaane woon a ko nit ñi daanañ ko jëfandikoo biñ demee ba jëmmi jamono ndox am ñu tàmbali di jëfandikoo ndox ma ndax moo gën a mën a bila shakk wallahu taala alam waffaqakum albaari jërëjëf cheikhana cheikh bi kii nee na yee sax dafay faral di def boo demee xaalis jënd ay téere ak ay juzu yaasin ak amma di ko saraxe mu ni loolu tuyaaba ji maanaam euh, nan la toll ak noonu daal alhamdulilah euh, jël ay kaamil wala ay xaaji alquran di ko sarxe loolu day lu baax la waaye li ca gën du mooy dajay nit ñi dem rek nga di leen ko sarax waaye mooy yóbbu ko ci jàkka def ko mu nekk sadaqa jaariya wala waq koo xam ne ñuy jullee fi ci jàkka ja dañ koy jàng tuyaaba di ko mu ngi di ca am tuyaaba amaa tuyaaba ñoom toll nag loolu xaw ma ko waaye ala kulli xaal képp koo xam ne yaa ngi jàpp ci téere yàlla bi di ko tasaare muy jot nit ñi la chaque ne am nga tuyaaba ji waa tuyaatu ci loola li am solo rek na sell yàlla rek tax su ko mënee jënd teg ko ci jàkka moo gën a ñoŋ te it jàpp naa ne ci lay gën a bare ndax lu bari ci nit ñi koy jàng du doon nag loo xam ne rek kenn nit ko koy daal jox mu yóbbu ko wallahu taala alam waffaqakum allah wa jazakum allahu xayran cheikh bi ki nee na moom fi muy liggéeye yée sa patron woo ko ni ko mu daggal ko yàpp nee na nag yée yàpp yim koy daggal da ci amaale yàpp mbaam xuux mu ndax dina dagan moom en tant que julit mu koy daggal yàpp mbaam xuux alhamdulilah su fekkee ne di ko daggal aw yàpp loolu mooy ab liggéeyam te yàpp yi yàpp wu dagana nga ca ak yàpp wu ci jaxasoo woo xam ne wu dagan bi la te mënu koo ràññee su boobaa dagg nga moom amuñu dalil boo xam ne day wane ne gees ko koy tere wallahu taala alam jazakum allahu xayran jërëjëf bi kii dafay laaj mu ni julli néew ñaata kàbbar lañ koy defal mu ni jullee néew nee na sax euh, su fekkee ni yonent bi sallallahu wa sallam moo jiite Hamza ak yeneen saxaaba yi faatu ci dundam nee na ñaata yoon la leen kàbbar ak lan moo dagan ci ñu kàbbar ko ci ay yoon ci jullee néew. alhamdulilah jullee néew ñeenti kàbbar la ci la gën a siiw waaye juróomi kàbbar it nag sax na waaye li gën a siiw te gën a tasaaroo ci xadiis yi ak ci mboolem ngëri lislaam yi mooy ñeenti kàbbar la. waaye su kàbbaree juróomeelu kàbbar it loolu sax na ci xadiis te lu wér la waaye daa nekk sunna soo xam ne ñu bari xamuñu ko ba tax ko kon loolu nekkul loo xam ne lu wàññi dara la wallahu taala alam baarakallahu fiikum wa jazakum allahu xayran waffaqakum allahu lima fihi alxayr wassalah ci tontu yi leeri cheikhana yàlla na la yàlla Euh, yàlla defal la tawfiq ak taysir defal ñu ko defal ko mboolem jullit kon bokk auditeurs yi fii la ñuy yemandi seen émission Al Fatawa ba beneen ay bis wasalaamaaleykum mooy këru ouvrier yi mooy këru professionnel yi képp koo xam ne da nga di professionnel di liggéey wala ngay ouvrier da ngay soxla outillage ñun ñooy numéro un ci wàllu outillage fi nga xam ni moom moo di ci réew mi ak fépp foo dem ci àdduna bi la marque Total est de renommée internationale lan nga bëgg groupe électrogène aspirateur pompe émergée motopompe meuleuse seize vi wala lan total suñu adresse mi ngi nekk 82 avenue Lamine Gueye téléphone 33 821 45 45 suñuy partenaire ña nga ca Mbour Tivaouane Pikine Tali bu mag Touba Kaolack mais aussi à Saint-Louis la marque Total foo dem ci àdduna bi fekk ko fa ndax qualité jataayu fatwa yow mi am lu la ump ci sa wàllu diine jaaxle jeex na Leeral FM jagleel na leen seen émission bi di Al Fatawa Al Fatawa Fatawa di émission buy tontu seeni laaj yu jëm ci seen wàllu diine àllarba bu jot vingt et une heures jàpp vingt ngeen ci ànd ak al oustaz Abdallah Baba Dieng mu ciy feggoo ak ak docteur Mouhammad Ahmad Lo ak seen émission bi di al Fatawa ku am ak laaj jëmale ko ci émission Fatawa mën nga koo bàyyi ci numéro bii 77 396 42 42 nga mën faa bàyyi sa laaj ci whatsapp bi. kumpa tàggalikoon ak yéen ci lu jëm ci seen wàllu diine.